ilaha इल ilaha illallah La 啦啦。 إلا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 إله إلا الله illallah la

إلا عليك لا إله إلا عليك لا إله إلا عليك إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله la la la la la la ilaha la ilaha illa إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا إلا إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا la ilahe illa la ilahe illallah la ilahe illa la ilahe illallah ilaha la ilaha illallah la إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إله إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله

إله إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا ilahe illallah la ilahe la ilahe illallah إله إلا لا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

إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah laa ilaaha illaa laa ilaaha لا إله إلا لا لا إله dañu waxoon dañu bëggoon a tàmbali waxtaan bi oustaz Pape Khali mu ngi ci yoon bi waaye xam ngeen ni mu ngi bëgg temps baa ngi dem bismillah La ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha la la ilaha la la

إله إلا لا لا لا إلا لا إله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 قبل كل شيء نعتذر لتأخير مجيئنا في هذا المكان كما عودناه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي نجيجل لين يخي نيوبي يون بي مو خوي دمي نو خمني خوو لما نجال كو پر نغ سي پروبلم لا نبال نيوخ بوبو نخطو غاي بي مو ملني تي لني تج غوديغا خامتيني سيدي الحاج مالك رضي الله تعالى عنه اوبلون نكو يونت بي صلى الله عليه وسلم ني ورا نوبلو صبا غامو غناو صبا تاي نك ني جوبلو سي بونت بيغا خامتيني موي بونت بيغا خامتيني الامام بصيري دا سي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم ndax tàmbale boo gis dañ koy tijjee tur yàlla mais bu ñu koy tëj tëju ko turu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni bunt boobu kenn ci ñi nga xamante ne yàlla dogal na li ñu mus ci xam-xam yépp ci keppaaru Sëriñ Babacar gi lañ ko jële ci suufu tantu sëriñ Mansour si borom daara yi mu di ñuy wax imam Maodo Sow mu am taxawaay bu am solo ndax bokk na fi ci yi nga xamante ne moom la fi sëriñ bi bàyyi muy jàng ak jàngale moom ila zamanina haza ci la nekk moo yoral yenn ci daaraam yi ndax daara yi bari na benn nit mënu koo yor mais parti bi nga xamante ne moo ci kër gi premier parti bi moko yor yenen yi ci dess am nañu ko yor mudi imam modou Sow mom lañuy baye buntu fukel bi mu wax ñu téré yi nak dañuy bind mu najat waye buntu la bo xamantene faslul asir fi salati wassalam ala nabiyil mustafa sallallahu alayhi wa sallam ndax mokoy koy kon ñu bàyyi imam modou Sow mu jox ñu bind bi nga xam ne moom la ñu àndil tey muy bind fukkeel bi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله شاره الصدور باتباع أفضل الأنام الآتي بالإسلام والإيمان والإحسان تحفة لأهل الإسلام من اصطفاه ربه بالصفا وأعطاه الصلاة والسلام عليه منا الصلاة والسلام ما دام الكلام وأنشد سعر في مده خير الأنام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yu tedd yi ñu ngi yëkkati nuyoo yu tedd ci tedd ci guddi bu tedd jëmee ko ci yéen nuyu ak ziyaar yi ñu ci jiital xalifa bi cheikh abi bakrin si muhammadin il mansour ayyadahu allah wa nasarahu wa raahu wa mattaahu bi kamil siha ak mboolem usratul malikiya di nuyu allajnatu saqafiya bi nga xam ne ustaas Pap Xaali Njaay moo ko ak mboolem lijaan yi nek ci hadara bi di nuyu sunu kilifa di len ziaré di len ndokkeel ñu nekkon ci buntu bi mujj moy al munajat wa ardil hajat munajat li muy firi mooy deeyaaleeg sunu borom tabaaraku ta'ala da imam al bushri radiyallahu taala an bu mu defé qasida bi moy burda bu mu demee mu tàggee ko yonte bi sallallahu wa sallam mu dem bu ci mujjantal bi mu tëjee ko almunaajaat ndax almunaajaat daa am solo balaa ñu dugg ci bunt bi nag il faut que ñu def taarif almunaajaat munaajaat mooy lan munaajaat luxatan comme nga ne deeyaale naa ak diw mooy assaraw bi ma fi qalbihi min asraarin wa xassahu bil xadis nga waxanteeg nit li ci sa biir ci sekkere loolu lañ tuddee munaaja bu dee ci istilaax mooy ñaan ak wax ak sa borom tabaraka wa taala munaaja ci sharia mooy nga ñaan sunu borom tabaraka wa taala ci sekkere ci wax boo xam ne kenn du ko xam ku dul yow ak sa borom tabaraka wa taala nga yéene ci toroxlu ci kanamu yàlla wàcce sa bopp ci kanamu yàlla sakku aaja bu faju ci kanamu yàlla subhaanahu wa taala nga jaarale ko ci sàng bi sayidina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ndax munaajaat day sabab ñaan bu nangu am na ay sart sart bi bi ci jiitu mooy ixlaas sellal ñaare bi mooy al istimrar wa bi mooy atadabbur wa am na ay teggin tamit teggin yi mooy lan tàgg sunu borom tabaaraka wa yàlla balaa nga koy wax soxla danga koy jëkk tàgg ci ay melam tàgg ak subhaana wa wéetal melakaanam ci jëmm yi ak ci melo yi ak ci lépp ñaareel bi tamit na la wóor ne nga am yaqiin subhanahu wa taala day nangu sa ñaan ñetteel bi mooy lan mooy toroxlu ak teewlu ci sa xol ci kanamu tabaraka wa taala loolu nag boroom xadara bi cheikh alxaaji malik moo ñu ko jàngal radiallahu taala anhu فلا بد من شكوى الى الله كربتي فما لي غير الله جابر كسرتي بمو جوخه يالا تيرام فبين يدي مولاي لان لا ما زلت واقفا نن لا فملو من ذليلا حقيرا مستغيشا لشدتي نيني بما تخاوي تي كانامو يالا ملكان يي لا فملو موي توروخلو دويتي xam ne aw ma daralu ma man lépp mu ci sunu borom tabaraka wa taala loolu moo tax imaamu Bushari radiallahu taala anhu bunt bi da ci jublu xadis boo xam ne ñu ngi koy tuddee u shafaa ñëw na ci Buxaari saxi Buxaari xadis bu gudda la waaye pour ñu dugg ci bunt bi rek il faut ñu tënk imaamu buxaari radiallahu taala anhu mu ngi koy nattali ci saxihu buxaari mu ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne yowmal qiyaamati yàlla dina mer mer boo xam ne di jiggi dayo yàlla musul mer mer bu mel noonu te du mereti mer bu mel noonu ñépp jaax ne mbindeef yépp doow ñëw taxaw ci kanamu yont yàlla aadam aadam mu ne leen dem leen ci noox ñu dem ci noox ñoo mu ne leen dem leen ci ibrahim ñu dem ci ibrahim ibrahim mu ne leen dem leen ci musa ñu dem ci musa musa mu ne leen dem leen ci isa ñu dem ci isa isa mu ne leen dem leen ci sanga bi sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ñu àggee ci kanam yonte bi sallallahu alaihi wasallam yonte bi sujud ñu ne yonte bi sallallahu alaihi wasallam sigil waxal ñu déglu la ñaanal ñu jox la ñu la yonte bi sallallahu alayhi wa sallam soog ndax mooy borom shafaatul kubra kera nag melekaan boobu yowmal qiyaamati mer bi yàlla subhaanahu wa taala mer bu mu jéggi dayoo imaamu Bushayri nee ne amul kumu mu wéeru ci gannaawam sama dara du fa dox moo tax naa jël ci kee xam ne mooy daytalu ñépp mooy sayyidil wujud wa qiblatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne yaa akrama rusul am ñu ne yaa akramal xalq maa lii man aluuzu bihi siwaaka inde hululil ajisil amam mu ne yaa akramal xalq yow mi xam ne yaa gën a tedd ci li yàlla bind mooy nit jinne malaayka lu mu mën di doon lépp luy bindeef fre yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo ci gën a tedd imaamu Bushari mu ne maa lii man aluuzu maa lii de di ma ñeexal man imaamu Bushayri man koo xam ne aluusu dinaa wéeru bii ci moom si waa ko ku dul yow yonte bi sallallahu alayhi wa sallam kañ indi huluulis fas wàcc alxaadisil amami mbir ba di aji motale tiitaange ba di aji motale te mooy bésu yowmal qiyaama aw ma kenn ku ma mun a wéeru ci gannaawam te ma mucc ku dul yow yonte bi sallallahu taala alayhi wa sallam إمام البسيري من ولن يضيق رسول الله جاهك كبي إذا الكريم تحلى باسم منتقب ولن يضيق دو ختمك جاهك كصدراجه بيتي من إمام البشيري يا رسول الله يا ينتبي صلى الله عليه وسلم نخ ينتبي صلى الله عليه وسلم sallam ديف def يال ووهيك تلو رسول الله مو rasulallahi moo moo tax imaamu Buchari mu ne ka rasulallah isal karimu ndem aji tedd di mooy sunu borom tabaraka wa taala taxallaa wala tajallaa am ñu ne taxallaa takkaayoon am ñu ne tajallaa feeñ na moom sunu borom tabaraka wa taala bismi muntaqim yàlla daa am ay tur yu bëri juróom-ñeent fukki tur ak juróom-ñeent yi ñëw ci alquran waaye ëpp nag wax nañu tur yàlla yi juróom ñetti junne la yooyu nax yi xam ne moo ñëw ci alquran mooy juróom-ñeenti tur fukk yi ak juróom-ñeenti kere yowmal qiyaama yàlla mu fay tudd tur bi tudd muntaqim pour mu mën a jëflante ñi xam ne dañu bàkkaaru te dañuy tooñ gis nga imam Bushayri daa yeewu ndax xam ne yàlla subhaanahu wa taala turu muntaqimu lay melokoo kere yowmal qiyaama mu dugal fa alkarim mu wooxee foofu yàlla subhanahu wa taala alkarim di zal karim mu ne yow yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fa inna min juudika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma allawhi walqalami fa inna min juudika bokk na ci sa tab yow yonte bi sallallahu alayhi wa sallam adunya aduna yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam am bi nga am motax aduna am budul won woon bi sallallahu alayhi wasallam aduna du am wa darrataha ak wujjam bi mooy alaxira kon yonent bi moy sababu aduna moy sababu alaxira sallallahu alayhi wasallam شيخ الحاج مالك لو لم يلخ في yalux الكون طلعته تبقى البرية في ظلماء الله yonte bi bu ñëwul woon aduna ak alaxira lépp lëndëm lay doon mooy ñàkk loolu moo tax yonte bi mooy mahdi rachad min al fasa mahdi al xalq min al fasad ila rachad mooy yonte bi salallahu alayhi wa sallam wa min ulumika bokk na ci sa xam-xam yow yonte bi salallahu alayhi wa sallam ilm al lawhi wal qalam lawhul mahfuz li ci biir lépp bokk na ci xam-xam yonte yàlla da ko yirloo lawhul mahfuz mu xam li ci lawhul mahfuz wal xalami ak xalima bi xam ne mooy bind jëfu jaam yi kon nag yaa nafs laa taqnati min zallatin azumat ndax inna alkabaira fi lgufraani kallamami yaa nafsu yow bakkan bu shari di waxante boppam maanaa yaa nafsi mu nekk laa taqnati bul naagu min zallatin ngir racc ricc ricc yoo xam ne azumat màggan bakkaar ak tarxiis yi xam ne yaa ngi koy def yow bakkan bi mu nekk yu mag bu mu tax nga naago ba doo dugg ajan lu tax mu nekk innal kabaira bakkaar yu mag ñi kallama mi comme bakkaar yu ndaw yu fi la xufraan yi ci njëggaale yàlla buy jëggaale yu mag ñi ak yu ndaw yépp moom la yemale te inna allaha yaxfiru zunuba kullaha kon bul naagu ndax laa taxtatu min rahmatillahi fa inna allaha yaxfiru zunuba jamia mu nekk la alla rahmata rabbi hiina yaqsimuha taati ala xasabi lismaani isyaani fi lqisami mu ne la alla amaana rahmata rabbi yërmande sama boroom hiina yaqsimuha ci jamono yi mu koy séddale تاعتي دينا ديكي يرماني بي دينا نيو على حسب العصيان كم تالله موي في القسم تي سدالي القسم موي سدالي القسم موي نجي القسم موي سدالي تلك اذا قسمة ديزي كون يالا سبحانه وتعالى بوي سدالي امانه كونين نيغا تولو سباكار نيمو غينا بري يرماني يالا نونو لاي غينا بري تي يو لول موتاش الحاج مالي ورحمه الله qad wasi'at kullal khalq min fajirin ba min fajirin wa muti'in bari wa rahmatullahi kullal khalq qad wasi'at min fajirin wa muti'in ba zahidin bari kon yermani sunu borom Imam Busiri nee ne amaana ku ne sa bakkaar ni mu toll bu amee bakkaar yu bari jox yermani yu bari njegal bu bari bu amee bakkaar yu ndaw mu jox la lu kon loolu moo tax tiituma ya rabbi yow sama borom wajaal na nga def raja yi samay yaakaar mun akisin de di njettu yaakaar bu njëtt mooy yaakaar bu nga nga gis kon yalla boo tas sama ladayka fa yow wajal te nga def xisaabi sama rek le man bu shayri xayra mun xarimi de di aji dogganti ëllëg yowmal qiyaama kon mu ngi waxaale sunu boroom tabaaraka wa taala ci mu naajaatam mu yow yàlla yàlla boo tas sama yaakaar yàlla boo def ëllëg samay regle bu ñu may regle mu bañ a nekk loo xam ne day métti dal munajat ay istilahat yo xamne soufi suufi soufi yo ñokoy wax ñokoy jëflan du démé demee ne munajat mukashaf muraqaba mushahada mujahada yo al istilah ak soufiya ndax xam nañu yonte bi sallallahu alayhi wasallam moy buntu sunu borom kon bo buggee ag ci yàlla il faut nga jaar ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدهو الأهوال ينحزمي من والطف يلا نغا نيوانت بعبدك سجام بي دي موي إمام البشيري في الدارين تي نياري كيري موي أدونا أك الآخرة نا إن له أجي صح ديك نيهال صبرا ضعيفا محذف ضعيفا إن له صبرا ضعيفا Sabran muñ bu doyati boo xam ne day gaaw a mata tad u saa bu ko wooxeel ëhwaalu tiitaange yaa saa bu ko tiitaangee songee rek yan xasimi mu foñ mu daw ndax muñ bi moo dégërul inna lahu sabran daifan mata tadul ahwalu yan hazim. kon yow sunu boroom tabaraka wa taala yi wazan naga digal yalla naga digal li suxbi di ñaan sunu borom tabaraka taala ndax lamar bu jëmee ci yàlla ñaan lay doon da ngay ñaan ci yàlla subhanahu wa taala bu jëmee ci ko yilif ndigal lay doon talabul aala ila al adna ak talabul adna ila al a'la ak al musawa deng euh, loolu moo tax waatan ne waasan cheikh alhaaj mali wax wali nisa عزنا الرحمن وحمل ذكور ذلك العام إكراما لمحترم ولنساء عزنا ndigalna jox na ndigal yàlla bu ñu umbee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jigéen ñi umboon yépp yàlla jox leen ndigal nañu umb ay doom yu góor moo tax imaam Buchari mu ne waazan yàlla na nga digal li suxbi salaatin minka daaimatin ala nabii bi mun hëllin wa mun sajib li suxbi salaatin ci niiru salaatu لولين تدي إضافة المشبه به إلى المشبه إضافة المشبه به إلى المشبه ميسوح بصلاة منك بجوغيتي يو صلاة دائمة منك بجوغيتي يو سنو برام تبارك وتعالى بوخمنا بمنهل ومنسجم على النبي بمنهل دي دوتيك منهل موي تو بوخمنا دي سوتيك بو باخ باخ saji mooy tow boo xam ne day wis nee ni yow sunu borom yàlla na nga digal niir salaatu boo xam ne taw la buy dottee ko muy waame ak taw la boo xam ne day dottee muy yol di wis muy sotteeku ci sàng bi sayyidil wujud sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam niir boobu di sotteeku ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne rannaxat عذبات البان الريح سبا واطرب العيس هادي العيس بالنغم ما فهمني رنحت مغي جاي لوح ريح سبا موي فاعل بي نجلي والد سبا موي نجلي وخمني دي اوبتي ويتو كعبة بي دي جاي عذبات البان غرب بان بان موي غرب يتو دو نبداي تي boobu mooy albaan albaan mooy nebedaay garab la bu am njariñ boroomi xam-xam yi ñu ngi koy tuddee saab-saab boroomi xam-xam wax nañ ci ay lu mot ay junni njariñ wala lu ko ëpp kon te ñaareel bi tamit daa am xet bu neex nee ni fi xam ne ngelaw mu ngi jaayloo garabu baan lan moo tax imaamu Bushayri wax loolu imaamu Bushayri euh, radiyallahu anhu daa bind xasida bi mu mu febré mu xëy waxu kenn di di doxantu ci mbedd mu am ku mu dajel ci yoon bi koku mu nek yaw la Bushayri mu nek waaw mu nekk dooma jox qasida bi nga def ci yoon tibi sallallahu alayhi wasallam mu nek ban qasida mu ne da nga febar def ci yoon tibi qasida mu nek waaw waji taril ka qasida bi amin tazakkuri jiranin bi zi salami majajta dam an jaramin muqlatin bi dami bu ci bayit bi maaranaxat azabatil baadi bayit bu ci jiitu ak bi ci mujj moom la ko tari imaamu Busayri mu nekk man demaa waaru ndax xasida bi maa ko taalif te waxuma ko kenn mu nekk dem ko fekk démb ci guddi dama gënt ci kanamu yont bi sallallahu ñuy jàng xasida bi ci kanamu yont bi yont bi toog di jaayu comme ni garab ni ngelaw def bu uppee caru garab muy jaayu noonu la yont bi sallallahu alayhi wa toogee di def nii di jaayu loolu mo waral ba tay bourde buñ koy woy xeetu yonti sallallahu alayhi wasallam dañuy tok di jaayu imam bu shay moo motax mom tay mu ne maaran naxat azabatul rihu rexu watrab al isa haajil isu bi naxami maa fi xam ran nahat mu ngi jaayuloo azabatil bani garabu ban moy garabu saab-saab lan moo ko jaaylu riixu saban ngelewa saba wataraba te di bégloo al isa gélemu mbeey ya kan moo leen di bégloo haadil isi aji màng gélem yi bi naxami ci woy ya di woy neex ndax gélem jur boo ko jiitalee sàmmkat yi dañu xam dangay wëlis di ko woyal jur bi di kontaan di dem imaamu Bushayri jël garabu baan ya mbicc bi maanaam caru garabu baan ya mu nirale ko ci kaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi mu toogee di jaayu mbiccum kaala ba da doon jaayu mu jël baan bi garab bi ci boppam mu nirale ko ci jëmm yont bi ndax xet bi ci nekk te xetu jëmm yont bi sallallahu alayhi wa sallam raw na loolu waaye moom lañ ko mën a niral mu jël gëlëm yi mu nirale ko ci xeetu yont bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ويكاد بي مو نري لك سي تيري بي موي بورت لول موتاخ بو نيو ووي بورت خيت يونتي صلى الله عليه وسلم داغي جيس نيو جايو غير لان نيهايو ويين بي اك سيكري بي تي الله سبحانه وتعالى ديف بوكو واجي ناتلي گنت بي فك في لا تيري بي يمون داخ في موي تيميري بايت بي اك جوروم بنيل فوك موي مارانحات عذبات البان ريح سبن وطرب العيس هادي العيس بالنخبي ci la ko imaamu Bushayri tëjee nag summa rida an abi bakri waaye fii la téere bi yem mooy téeméeri bayit ak juróom benn moo tax mu ne summa rida topp ngir ma ni an abi bakrin yàlla na nekk ci abi bakri mooy xulafaul arbaa ñi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa moo ne woon xulafaul arbaa ñooy ay biddew ci sama gennaaw ñooy leeral diini bi ci sama gannaaw moo tax imaamul Busayri mu summa rida topp ngir ma ni an abi bakrin yàlla na nekk ci xalifa yonte bi salallahu alayhi wa sallam abu bakri saddiq waan umarin ak umar ibnu alxataab waan aliyin ak ali ibnu abi talib waan usmaan ak usmaan ibnu affan zil karami kadi boroomi tent al Busayri radiyallahu taala anhu soufisme bu makla da niro niroo Seydil haji Malik radiyallahu taala di ñu xaw niro da bo boo comparé seen abyaat di ñu niroo imaamul Busayri fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilma lawhi wal qalam cheikh al-haji malik muné law lam yalu fi fadail kawni bi don doon wax léegi imaamul Busayri laalla rahmat rabbi hine yaqsimuha سيدي الحاج مالي من ورحمة الله كل الخلق قد وسعت إمام بشاي من يا ربي وجه الرجاء خير عكس سيدي الحاج مالي من من لا يخيب عبدا جاء يسأله يا مانع عن صعول سحر أحرار إمام البشير مني والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينحزم شيخ الحاج مالي مني يا أكرم الكرماء يا أرحم الرحماء يا ألطف اللطفاء يا برد أحراري من لا يخيب عبدا جاء يسأله يا مانع أن صعود سحر أحرار قال شيخ الحي مالك يلنا نكو يالا فيه لول موتا مني ثم رد عن أبي بكر سيدي الحي مالك وخانا كوتي لقد حاجة موي في مواحنة ci goro yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xilaafatum baada rasuli jamil abda'u bi siddiq asbati sahbihi bi yawmin mada nahwa al ilahi khalilu wa azkuru ashar an nabi liannahum xilaafatum baada nabi jamilu dinaa tudd goro yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñaar ñi yonte bi moo leen may soxna ñaar ñi ñu may yonte bi sallallahu alayhi wa sallam soxna loolu moo tax imam bushayri mu ne summa rida an abi bakrin وانا عمر وانا علي وانا عثمان ذي الكرم كدي بروم التابع والآل والصحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم والعالي أكنين ينتبه صلى الله عليه وسلم والصحب أك صحب ينتبه صلى الله عليه وسلم صحب ينتبه صلى الله عليه وسلم موي كيب كو جامانانتك يونتبي nga fekke yonte doonte jamono boobu da ngay doon namp ci saxaaba yi nga bokk ci charte bu fekkee ne gum nga yàlla te déggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam summa taabiina topp wooy topp fa hum ñoom ahlu tuqaa ñooy ñañ ragal yàlla subhaanahu wa taala wan naqaa ñooy ñuy set wal xilmi ñooy ñañ lewet wal karami ñooy ñañ tedd kon yaa rabbi yow sama borom بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرام mu ni yaa rabbi yow sama borom balliq nga jotal maqaasidana sunu jubluwaay li ñu jublu ci téere bi ñu jublu ko ci ñaan bi ñu jublu ko ci gàmmu bi ñu jublu ñu jublu ko ci layaali burda yàlla na ko jottali yow sunu borom tabaraka taala nga defee ko kan bil Mustafa ci barke ki ñu tan nak ci mo yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam ya rab yow sama borom waghfir yàlla nga jigal lana ñaañ ma dali wéy ci ay bakkaar yaa waasi alkarami yow mi yaatu ji teddange wala tabe nga defé ko boté bil mustafa ci barke yonte bi sallallahu alayhi wasallam waghfir yàlla nga jigal ilahi yow sama borom لكل المسلمين مبولم جلتني بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي البحران بما تبارك القرآن بخمني يتلوه ينتبي من كيدون جانغ في المسجد الأقصى وفي الحرام فائل يتلو مو ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي مو فائل يتلو ينتبي ممريناني نيو بيتي مسجد الأقصى دفا جيتي أي ينتبي mu jiite leen foofu ñu daal di mu mu fa alquran jàng alquran ci masjidul haram kon da ngay wax ne ci barke alquran yatluuhu boo xam ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jàng fan la ko fil masjidil aqsa ci masjidul aqsa wa fil harami ak masjidul haram ndax dañuy wax ne maa waaqeun ala dañuy wax ismu mawsul comme boo waxee ne bi maa maa boobu day tabbi ci alquran ndax ismu mawsuul comme boo waxee maa faalta fekk ñu ci jublu al fi'lu lazi faalta pam njaay al fi'lu lazi faalta nga ne maa faaltahu lu moo tax imam Bushiri jëfandikoo foofu mu ne bi maa yatlu ay bil qur'ani allazi yatluhu fi l masjidi l aqsa wa fi l masjidi l haram bi jaayi man ci barke ke xam ne baytuhu néegam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaramun urum la fi taybatin ci Medina bi jaayi man ci barke yonent bi xam ne baytuhu néegam xaramun urum la fi taybatin ci Medina bu la neex nga ne xaramun nee nañu dagaan na nga ne xaramun dagaan na nga ne xaraamun loolu moo indi masjidul xaraam wa ismuhu turu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qasamun ngiñ la min azamil xasami tukkee ci giñ jaa màgg ci ngiñ ja ngiñ yont bi turu yont bi sallallahu wa sallam imaamu xanbal nee na giñ ci jëmm yont bi sallallahu alayhi wa sallam dagaan ndax ndax jam jëmm yont bi sallallahu alayhi wa sallam moo noonu dégg nga moo tax bi jaahi man ci barke yont bi xam ne بيتو نيغام حرام اورم في طيبه تي مدينه دين واسمه ترو يونتي صلى الله عليه وسلم قسم غين ام ني ني يالله سبحانه وتعالى دا غين تي دوندو يونتي بي تي يالله بو غين تي دوندو يونتي بي ها لامبول نك جيم يونتي بي لامبول نك ترو يونتي صلى الله عليه وسلم ام ني ني واسمه ترو يونتي بي قسم ترو يونتي صلى الله عليه وسلم لو تي دوغو رك يالله ديفكو loo ci loo ci dogu rek yàlla def ko moo taxoon mag ñi léeg boo ñëwee ñu lay ñaanal dañu waa tàllal ñu jàngalal salaatal faatiha bu ñu jàngee salaatal faatiha yont bi lañ ci dogu loolu moo tax yàlla day nangu ñaan bi loo dogu ci turu yont bi rek sallallahu alayhi yàlla jox la ko bu fekkee ne yéene bi sellal wahaasi lii ñuy doon jàng boobu ba tey mu commencé ci amin tazakkuri jiiraanin ba fii ñu toll burdatul muxtaar mooy mbubb bu ñu tànn ji ndax mooy yére la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg moom la ko woy fekk boobu mu ngi feebar mu dal di wér am ñu ne daa gént yonent bi solal ko mbubb am ñu wax loolu ni mu ko defee loon borom baana soada fa qalbil yawma قد ختمت متلفنك كنا والحمد تانت لله نيان يالا في بدء تي كوماس ما وفي مختتم ام متلكو واي كون كوماس مبير بو اغليك تانت وار نتي كون ني كم كوماس وون بوردو بي تي بسم الله الرحمن الرحيم نون تامي بو نار تي تي الحمد لله رب العالمين كون تانت وار نتي لو موتا امام بسلم ني وهذه لي المختار قد ختمت kon walhamdu chant lillaahi ñaal yàlla subhanahu wa taala fi bad in ci commencement bi wa muxtatamin ak way bi fiñu commencé ak fiñu motlé subhanahu wa taala kon ñu ngi koy sante yàlla subhanahu wa taala abyaatuha bayti burda bi qad atat dikana ñaata la mu ne sittiina juróom benn fukk ma meatin ànd témèr témèr bayit ak juróom benn fukki bayit mooy boo commencé ci téere bi ba ci marana xata azabatu azabatil bani fof foofu la téeméeri ak juróom-benn fukk yi yem farrij yàlla nga wuññi bihaa ci sababu xasiida bii bihaa ci sababu burda bii yàlla nang ci wuññi kar banaa sunu njaqare yaa waasi alkaram yow mi yaatu teddaangi sunu boroom kon yàlla nanga wuññi sunu njàqare ci burdatul madiha bii nga dindi ci sunu jaaxle faj ci sunu aaja ci barka burdatul madiha bii yaa waasi alkarami yow mi xam ne yaa yaatu teddaangi kon ñu ngi koy ñaan yal nañ ko yàlla defal ci barke burdatul madih ak barke ki ko taalif mooy imaamul bushayri ak barke borom xadra bi cheikh alxaaji malik ak barke borom béréb bu tëdd bi ci cheikh alxalifa abi bakar radiyallahu taala anhu mi xam ne kenn demul mu def ndax moom tamit mu ngi woon yaa sayyidi yaa rasulallahi shafi'ana yawman yunaadi almunaadi fihi la'waa'u yaa sayyidi yaa rasulallahi malja'ana xarfu nida lilmunaadi minkumu yaa'u cheikh alxalifa sin babacar radiyallahu taala anhu moo ko wax kon daa mel ne foofu la bunt bi yem kon ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp àq ci gàttañlu bi di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekk at yu bari ànd ak rafetu fekkin yàlla yombalaan lépp ci barke sàng bi seydina muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam wa akhiru daawana an rabbil alamin wassalaamu alaykum wa taala wa barakatuh jazakumullah imam Maodo Sow eh, ni nga defee ilqaa bi am solo surtout génne bi nga génnee fu imam Busari yu wax Seydi Xaaji Maalik wax fa wax bu mel moom mënoon na koo jël bosam waaye mu tànn bu imam Busari lan moo tax mu tànn ko mag mu yàlla gërëm da daan wax ne loo laal ca moom am ca ngërëm la te comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gagantina imam Busari ci bir khasida bi kon yekna khasida bi comme ning ko waxe fa tabarakallahu kon mu melni rek lamma arada allah taala an la nabtaida an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala lana fi kulli salatin min salawatina سلموا على نبيكم بكاف الخطاب لا بهاء الغيب لا تقولوا السلام عليه قولوا السلام عليك أيها النبي لماذا؟ أين هو حتى نقول عليك الجواب تأتي من عند الله والذي أجابنا واعلموا أن فيكم رسول الله ليس معكم فيكم لوخ موتخ مانام لي امام مودو دون وخ دا فا ديلو سي رك با يالا بجي جوليت يي du ñu sori yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la leen digal ci bépp julli ñu ne ko assalaamu alayka kon ñu ngi jàkkaarloog moom te waxuñu ko assalaamu alayhi kooku nag alxuraan moo ko tontu moo ne yonent bi mu ngeeg yéen ba ku ci dëkk jam yonent bi yëg metit bi kon kooku war nañ koo delloo àq bokk na ci àq yi ko Seydil Xaaji Malik fàggul fii daje bi ñu fi daje pour delloo yonent bi li mu moom waaye wa bil asaf shabaabuna laa yacrifuuna shay'an an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax fii jamono ji ñu toll jeunesse bi xam nañ ku nekk boo leen doon tuddal savant yeeg footballeur yeeg musicien yeeg dinañ wax ku ko jur ak mais bu dee yonent bi mënuñ see dem fenn loolu nag gàcce la ci defi bu ñu war a relever ñu xamal d'abord nit ñi gannaaw alquran li ñu leen war a njëkk a jàngal mooy siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax julli goo julli ne bi assalaamu aleyka alquran ne la yonent bi ngeeg yéen fu ngeen toll mu ngeeg boo demee ca fi Seydil Haaji Maalik di wax tubaanu amaluna ndax ñaar moo am bés bu jot li ñuy gaaral yonant bi bokkul ak semaine bu nekk li liñ koy gaaral ndax foo jullee sa jëmmi assalaamu alayka mooy waral ñu gaaral sa jëf yonant bi mu vérifier bi ñu laajee yonant bi lan moo tax ñu wax assalaamu alayka ak lan moo waral yàlla ne soriwooñu yaa ngi suñu biir mu ne ndax bu seen jëf ñëwee ci man buñ ko gaaree ci man bu ma ci gisee lu baax ma sant yàlla bu ma ci gisee safaan ma jéggalul leen kon kooku war nañ ko dellu àqam li mu moom comme ni ko Seydil Hadji Malick di wooteel at mu nekk maanaam mën nañ ne sax at mi yëpp dina ko wooteel ndax njaboot gi fenn fu nekk dinañ fa tànt pour tagg yonant bi mais tagg bi bu ñu ko defee ute xaalis ñi koy organiser bu ñu ko ute xaalis nañu jéem a xam kan mooy yonant bi sallallahu alayhi wa sallam pour lii rogalaate ci moom mën a ñëw ci ñun ñu jariñu àddina jariñu àllaaxira ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ne moo ñu jàngal lan mooy jikko moo ñu jàngal lan mooy kersa lan moo ñu jàngal lan mooy raxma moo ñu jàngal lan mooy sabr bi ñu gën a ñàkk nag mooy li ñu tudde alxayaa u kersa actuellement dañ ko ñàkk te kersa boo demee ci aïcha radiyallahu anha moo ko jàngalaat jullit yi nee na ndax bi mu nekkee ci néegam ñu denc fa yonant bi col gu ko neex lay sol ñu àndi wéy juram mu kontine col gu ko neex lay sol da ndax dane kii sama borom kër la kii sama wéy jur la mais ba ñu àndee Omar ibnul Xataab daf ne bala maa solu damay fas samay sër ba mu dëgër samay yére ngir rus Omar ibnul Xataab mi ñu fi àndi mu mel ni loolu ñàkk nañ ko góor ñi ñàkk nañ ko rawatina jigéen ñi te loolu war nañ ko dellusi ci bind bi nga xamante ne moom la Seydil Xaaji Malik andi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp njariñ jullit la bi muy dund njariñ la bi mu faatoo njariñ la ndax bi muy dund mu wax ko jullit yi ne bu ma faatoo it seen njariñ la ñu ne ko boo faatoo nan ngay nekke suñu njariñ mooy liñ loon doon wax moment bu nekk balaa jëf yee jàll dem ci yàlla danañ ko jaarale ci moom lan moo ciy mission lu baax mu sant yàlla xam ne jam yang ngi def li leen yàlla bëgg lu jaaduwul mu jéggalu yàlla kon war nañoo dellu siwaat yi nga xam ne yonent bi jàngal nañ ko yonent bi moo jàngal nit ñi jikko jikkoom war nañ ci dellu siwaat boo demee ci mimee yëpp di nga ci fekk jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ leen ko fii dafa ni waral ndaje yi du ndaje pour nit ñi daje rek def yi ñuy def génn ci mais dajey kenn ku nekk duye ci waat ba fees dell ba nga xam ne feeg déwén dootoo soxla dara kon nag yàlla nañ ko yàlla boole defal ci barke Seydil Xaaji Maalik mi nga xam ne moo ñu fàggul lii ay doomam yi mu bàyyi gannaaw sàmm ko bu mu egsi fii tey mu ngi ci loxo xalifa bi moo tax mu wax joxe ndigal ne innama boxesi lu li utammima makaarimal axlaax nañ ko waxtaane delloo njaboot gi buñ ko day wax nag mooy jikkoy yonant bi boo ci jógee jàng jikkoy saxaaba yi boo ci jógee jàng jikkoy mag ñu baax ñi la yàlla booleel maam Cheikh Ahmed Tidiane Chérif maam Cheikh Omar Foutiyou Tall maam Seydil Hadji malik maam Serigne Babacar Sy nga xam ne am nañu ko fi fekke maam Mansour am na ñu ko fi fekke maam Abdou am na ñu ko fi fekke ridwanullahi alayhim ajmain sëriñ Mansour borom daara ji am na ñu ko fi fekke sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si am na ñu ko fi fekke seen mag muy sëriñ Moustapha si Jamil am na ñu ko fi fekke sëriñ Abdul Aziz Al Amin Seyd Pape Malick ba tey mu ngi ci ñi nga xam ne fi di jàppale xalifa bi ku gis euh, seydil malik bu mam abdul aziz buy wax joy yaa ngi ñëw ngir ñeewante nit ñi ci ñu dellu ci waat ci vertu yi nga xam ne la fi mag ñi bàyyi mu mel ni yooyu moo waral bi seydil xaaji malik tëj ko tëje ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kon nañu xam ne yonent baa ngi suñu bir fu ñu toog ñu gën a defar kuy jilli gën ko jox akam yoyu si sa taxiyaatu lillahi rek moo la koy wan fa tabarakallahu mawdo commission bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal sa làmmeñ yàlla na ko yàlla gën a ci mu jëm ci gi ñu dégg ko lu ci dégg nañ ko yal na la yàlla may cir yu sawar ci jaamu ko te loo jaamu yàlla yal na ko yàlla nangu loo ñaan yàlla na la yàlla defal xabul ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa yi kontaan nañu ñu ngi lay gërëm di la ñaanal ni ñi nga xam ne ñi jiitu noonu lañ ko defee lii nag lañu kilifa yi santoon ci ndigalal Serigne Sidi Ahmed mu jóge ci ndigal magam Cheikh Mouhamadul Mustafa, mu jigee si ndigalu magam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane xalifa bi jox leen ko ñépp kenn ku nekk fa nga jàpp nga jàpp fa yàlla na def ñu ñu yàgg taxawe lii defal ñu wér wérle ñi toog di déglu ñi ko borom tëjee nga xool mudari bi Ki dégg wa Ki kii dégg alxuraan jiñ ciy jàng ak ñépp yàlla na muy bési fari bàkkaar yàlla nañ yàlla faral suñuy bàkkaar yàlla nañ yàlla dugal ci yërmandeem yàlla nañ yàlla dugal ci lutfam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu rek la ilaha illa la لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله la

la إله إلا لك We إله إلا أنا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إلا لا لا لا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا la la la ilaha illa la la ilaha illa la la la la إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله

إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا La إلا لا إلا عليك إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا العالمين إلا عليك إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا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

inna la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا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 laa ilaaha illaa laa ilaaha illaa laa ilaaha illaa laa ilaaha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 لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا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 laa ilaaha illallaah laa ilaaha Ilaha illallah. se illa la la ilaha illa la la ilaha illa la la ilaha إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله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 إلا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا لا شيء إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله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

إلا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله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 illa la la illa illa la la la illa la la illa illa la la la la إلا لا إله إلا لا لا لا إلا لا لا لا إلا لا لا لا إلا لا لا لا إلا لا لا إله إلا لا سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله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 أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد Allah.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 السلام عليكم السلام عليكم faatiha salaatal faatih fukki lixlaas ak benn ñu tëjee ko salaatal faatih def ko addiyee ci yonent bi yéene ko sëriñ Babacar Si addiyaam ak kilifaam yi teddi ak njabootam yi teddi ak suñu waay dawlu yëpp suñu noppee ñu def faatiha salaatal faatih ayatal kursi xul walaahu falax ak naas yi téye ko salaatal faatih ñu def ko addiyee ci yonent bi yéene ko njaboot sëriñ Babacar Si ak njaboot Seydi Aji Malik yëpp yal na yàlla guddal seen fan may leen wér yal na yàlla yër leen balaanum sutura dugal ñu ca biir yal na yàlla defal fekke ak fekkele te tal ko yéene ci xalifa bi ak i rakkam yal na yàlla guddal seen fan may leen wér ñaanal xalifa bi yal na ko yàlla defal yegg ak yeggale ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa ñu yéene ci suñu kilifa yi ci dugg tukki fara tey yàlla na yàlla musal leen defal leen seen bëgg-bëgg ñu dugal ci way ziyaar yeeg way liggéey yeeg way aajo yal yàlla faj seen aajo faj suñu aajo yàlla bu ñu yàq yàlla bu ñu yàqu yàlla bu ñu yàqule về về waaw ci ndigalu khalifa bi ñu jàng ñaan gi ndigalu Serigne Cheikh yene ko khalifa bi wa Serigne Mansour Jamil tabarakallah khalifa bi ñu jàng ñaan gi fatiha salatul fatih falaqeeg nas salatul fatih dugal len ci bir nu dugg ci bir mu tambale bismillahir rahmanir rahim yàlla na yegg ak alhamdulilahi rabbil alamin upp yàlla upp ngelawal jàmm ci réew mi upp ko ci gàmm gi yëpp mbooloo mi ci jàkka ji sëriñ bi nee na ngeen bàyyi wax ji mbooloo mi ci jàkka ji sëriñ Cheikh nee na ñu bàyyi xel jàkka ji jox xorma jàkka ji sëñ Abdou daan na wax ni seyd Hadj malik neena muñ ci jakk sax de leundemal ba mel waaw daan na wax ni seyd Hadj malik ku bint kon nak nañ ci bàyyi xel bu baax fatiha salatul fatih falaq ak naas fatih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 دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم يا نفس لا تقنطي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 والحلم والكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق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 من عظم القسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت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 وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء ومختتم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم أبياتها قد أتت ستين معمئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي